merci beaucoup asalaamualeykum yéen waa senegaal yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen wax ni man ku ma xam xam ni politiguma ci dëgg laa mos taxaw ba ma nekk tout tànk ba ni ma toll nii bokkuma Pastef bokkuma beneen parti waaye réew mi moo ma ñor képp ku ñu fi bëgg a jaay doole damay taxaw sa wet ni kenn du la fi jaaye doole dama ni buñ ko tegoon ci yoon seen dossier tappale bi section de recherche sax waru fa woon a génn bañ naan day dem instruction kon nag seen tappale yi toog moo bul dog xee toog ñoom bu gëdd di toog ba fagelu xalima xol mooy koom na nga ci coom fexeel wut moom dëgg bu baax njàmbaar dëgg di law ci say doom ren talak sabakan bañal mooy na jëmm ji muy Ousmane Sonko wàcc leen ñu leen koy ñaan 1960 dafa am ak nguur gu fi nekk nekkal fi France ak ay seen i jegeñaale ak seen bopp ñu gis discours bu bees ci président Ousmane Sonko mu bëgg a jooyantiwaat réew mi tegaat ko ci yoon xale yi am xëy xale yi jàng xale yi faju xale yi nekk ci guddaandaat loolu lañ bëgg loolu loolu la président Macky Sall ni du fi amee ànd ak France ñun Sénégal ñu ni loolu lañ bëgg te jëmm ji moom lañ gis loolu ci moom dinañ àndandoo aar ko yiir ko ba dugal ko palais de la république lii la ñu bëgg bu bëggee jàmm na taxaw ci loolu sinon su ko deful nguuram dina jeex bala moo jeex 2024 dina ñu abal ñu organiser élection sénégalais yi fal kin bëgg a fal Ousmane Sonko dugg ci biir pale bi tegaat réew mi ci yoon réew mi neexaat ñëpp ñibbi si waat jërëjëf maa ngi sant ñëpp di leen gërëm.